waaw salaamaaleykum mbokk internet salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum waa Sénégal yoon dem TV tey dafa doxantu comme ni ma ko tàmm di ko defee rek tey ñu dem seeti koo xam ne yaakaar naa ne jëloon nañ ko fii ay jamono tey ñu ñëw di ko jësiwaat li nga xam ne tey lu waral coow yi lépp mooy match Sénégal bi nga xam ne moo war a fubal tey ak diggante moo Côte d'Ivoire tey ñëpp yaakaar xam ne ko ñu naan ko Mbarem Seck borom jinne yi te yaakaar ne kenn doon ko ndaatande si chaîne bi nga xam ne mooy yoon dem TV àdduna ñëpp xam nañ ko dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu doog a waxtaan bi Mbarem ñu ngi lay nuyu Waama leeni ziar di leen fay di leen jox seen wàccuwaay di kontaan ci yeen di kontaan ci télé bi nga xamante ni mooy yoonu ndam TV di sama tele di sama kër ma miin ko lool allah di leen ziara rek di nuyu mbokk àdduna ndax àdduna yépp dèjà xam nañ ma ngir seen jëmm ma leen koy sante di leen ko gërëme waa di leen wax na nag kontaan na macha allah. waaw ah, gars yi kon nu ngeen ko déggee nii tey moo waral ñu naan Marème borom jinne yi lu waral lool. waaw macha allah li waral Marème borom jinne yi eh, dafa fekk ne rek loo doonu mu dëgër li naan doonoo wóor lu doonu day dëgër ma doonu si sama néegu ndey doonu sama néegu baay fekk sama askan ñuy liggéey ci mbirum jinne am ay taalu bay taal tiw bay jinne ñu ñëw donn ko doonu néegu ndey doonu néegu baay macha allah lépp loo xamante ne rek ñu ngi koy def ci mbirum jinne ak rab ñu ngi ko ciy def ñi ciy am ndam yàlla di di ñu ci defal jàmm képp koo xamante ni egsi nga fi rek yàlla li nga bëggoon yàlla defal na la ko nga am loolu ñun ñu am ci fierté bu baax a baax a baax ñu ciy sant yàlla suñu borom bi subhaana wa taala moom mi nga xamante ne moom mooy ndénkaane te lii nga xam ne moom la ñuy liggéey muy mbirum jinne du loo xamante ne lu ñu jox suñu bopp la mayuñu ko suñu bopp du suñu man-man du suñu am mën a am fit xëy na yàlla kum ko dëxañ ci yow rek mu neex mu naqari danga koy liggéey parce que man avant may liggéey lii àdduna ñu may gis àdduna xam nañ ma fi ma doon sëy ñëpp xam nañ ma dañ ma tànc dugal ma ci àll bi ay fan ñu may ma gis may dugg ci ay bërigo ñu may wër duñ ma gis may taxaw ci kaw terrasse macha allah. waaw gis nañ ne coow li li waral coow li yëpp waral bi yëpp tey ñu ñëw déplacé ñëw seesi la Marème muy Sénégal wër football tey moo Côte d'Ivoire mm-hmm. gis neen Mara yi génn ku nekk di wax tey Marème woo ñu ñu bëgg xam Marème lan la gis si match Sénégal Côte d'Ivoire tey. waaw macha allah maa ngi sant yàlla di sant euh, askan wi yëpp di leen santaat bu baax a baax di leen wax ne coow li bari na waaye ku yàlla woon rek nga gis te ñun dañoo bokk ci ñi nga xamante ne ñi yàlla di woon lañ ñuy tëdd yàlla di ñu woon ñuy xam di xamle kon tey Sénégal tolloo ñuy fu ñu dëkk fi ñu cosaanoo muy fekk penc yeeg ñaar nga xamante ne lébu yi kuñ fi xaalalul woon dëkkoo kon nag ñun jot na ñun ñuy doomu réew mi ñun ñu wax kon jéggaane yi ñoo mën a wax waxuma laa ñun ñi nga xamante ne ñu ñooy suñu askan ñuy suñu doom ñii di suñu sët kon lépp luñ fi gis rek dañ ko waral leeral teg ko ci taabal bi mu leer nañ ndax wax la woo xamante ne nag du fay te wax wi day dem fu nekk ci àdduna te it jomb nañoo wax loo xamante ni ku ko dégg da ngay dar sa gémmiñ fii luñ fi wax lu leer lay doon luñ fiy gëstu ba koy mën a génne lu leer naññ lu ñuy teg ci loxoy doomu aadama teg ko ci kaw taabal bi la waaw damuwuñu nag fëgguñu suñu dënd ndax yàlla moo ñuy woon ñu wax ndax mission rek la ñuy dox ku sa mission jeex nga dem keneen ñëw kon dañuy ñaan ñi nga xamante ni ñooy xam-xamle nañuy yaatu te yaatalante dënn tey leeral tey jubal man de lépp lu may liggéey man na Marème Seck borom jinne yi dama ciy jubal dama ci leeral ba tax na man lii may def nii yéene naa ñëpp barke alxuraan barke Muhammad lu may wax lu ne bir naa ni man li may wax lu ne dafay am barke Seydina Muhammad waaw bu neexee ñu dem. aca loo gis. ah gaa yi yéen a ngi déggandoo de tey gi nga coow lu bëri na gars yi ñu ngi wax ma dem ne lépp lu mu wax rek loo dee gis kon nañ ko déglu seeran ko. waaw mu taxaw benn ñaar ñett yow yaa ko gisandoo muy def ndam li ñëw suñu kanam ndam li nag ca kam ndam la mën nañ am ñett bii. waaye ca kaw ñetti bii ba dafa laaj sarax dafa laaj dafa am ay xeex yi ne ci biir ñetti ndam ya nag ñaar assuré naa ne ñaar dana ñëw man ma leen sekk borom jinne man maa ko wax ñaar ndam dana ñëw ñetti bii nag mën na am waaye ca kaw ñetti bii ya dafa laaj sarax sarax bi mooy juróom-ñeenti fur wi ku ko mën a def juróom la ba ci juróom-ñaari maanaam pom fraise ananas lépp loo xamante ni ba muy juróom-ñaar mbaa muy juróom-ñett rek képp ku bëgg ndamu Sénégal ndamu àdduna bi na nga génne loolu man maa leen ko wax lii buñ ko génnewee ñett yi dana am waaye buñ ko génnewulee ñaari moom deux un lay doon man borom jinne yi man maa wax lii. kan mooy njëkk Sénégal mooy njëkk a dugal. ñee tamit dinañ dugal waaye deux moom dana am deux dana am bu fekkente ne trois bi dina am ñee dinañ ko bañ bu fekkente ne génnewuñu sarax yi lii daal xam naa ko te lii moom won nañ ma ko te gis naa loolu waaw. mais mënuñoo xam Sénégal ñenn ñi ñuy dugal. loolu moom xooluma foofu moom foofu moom xooluma ko man daal xool naa ñaata bii la am xool naa nan lay tëddee waaye daal kuy njëkk a dugal moom man xooluma loolu ndax lu may wax lu na day leer te bu may wax damay xool sama digganteeg suñu boroom waaw waaw ba tey ndam la ba tey mu taxaw benn ñaar benn ñaar ñett ndam mën na am ba tey waaye ñett ya wóorut benn ba dañ koy bañ dañ koy dañ koy xeex moo waraloon ba tey Sénégal jig jigéen lañu lu ñu dal daf ñuy dalaat looloo waraloon bu njëkk ba saraxu gàtt ba mu laajoon ñu yéex a def saraxu gàtt ga moo waraloon max bi passé mu am coow ba deret tuuru maanaam deret boobu lañ waroon a njëkk a tëral buñ ko defee woon ci bëy baax na buñ ko defee woon ci xar baax na waaye maanaam dañoo mujjee bëre ak jinne looloo tax ndam li mujjee ñëw waane amaana bu ñu ko génne woon te ba tey nag tërataarul gàtt gi képp ku ko mën a def nang ko def ndax suñu ndam ak ndamu Sénégal képp koo xamante ne bëgg nga Sénégal am ndam nanga nga génne fur wi na nga génne gàtt yi da laa ci xam loolu laa fi gis waaw. waaw ñu tey ñu ñu gis na danga nga gis coow lu bare ren gis nga ne Sénégal dina jël coupe waaw xam nga eggaguñu ci ay coupe maanaam étape bu ci nekk rek ak lu ñuy xool la bu ñu xoolee étape bi ba étape bi jàll ñu soog a jublu ci beneen étape waaye mënuñoo xoolandoo lépp ndax yàlla suñu borom kenn du ko jiitu ci mbaram. waaw man lu may wax lu leer lay doon ndax ëllëg bugguma ñu may tànne kii moom nar waram la mu wax mu nga ca ginnaaw dëgg déedéet. lu ma fi wax rek lu ma samay maam dee la yàlla dee ma ko ma wax ko mais du ma wax mukk loo xamante ni amut lu ma wax lu am lu wóor laay wax waaw mbirum coupe ba moom bis buñ ci tolloo ci kàttanu yàlla doole njool màkka bu boobaa boo leen fi ñëwaatee ma wax lu leer lu mel ni midi loo xamante ne dara du ko dindi ci kàttanu yàlla ndax bu daa daawaati jéeg ba mag ma fekk noa shot barki arxuraanu karim waa Nouakchott yëpp dinañ ma dégg ñu ngi may gis ba ñu delloo ba nga xamante ne tollu wuñu tuuroo bii dama xëm ma dogu ci sëñ Babacar Sy ma ni yàlla boo ñu naroo rusloo ñun ñi nga xamante ni ñooy njabootu askanu Sénégal yàlla bu ñu gisanteeg Mouhamed yoma xiyaam balaa sama kàddu wi di barki laa ilaha illallah ndam la dugg barki Mouhamed kon lii ñu am nii dañ koy sant yàlla suñu borom moom mi ko dëxañ ci ñun ñuy ay ndaw nag war a defaral askan wi war a defaral Sénégal war a siggil Sénégal man de ndamu Sénégal mooy sama ndam te lépp lu ma ci man ci kàttanu yàlla incha allah ba ndam li ñëw fii Sénégal man Marème Seck borom jinne dinaa ko ci dox dinaa ko ci wax incha allah rabbi kon tey daal ñu jàpp ne Sénégal 2-1 victoire bi saraxu firi mooy sarax bi. waaw fur wi mooy sarax wi juróom-ñeent fur wi wala juróom-ñaar juróom-ñaar wala juróom-ñeent parce que li mu cosaan juróom-ñaar la ñu toftal ci ñaari muy juróom-ñeent kon ku mën a def juróom baax na ku am doole def juróom-ñeent tamit baax na. waaye man Marème Seck borom jinne yi lii da maa leen ko wax bu ñu bëggee am ndam lii dinañ ko génne incha allah rabbi waaw kon gars yéen a ngi déglu dégg nga Marème Seck borom jinne yi lu mu wax nee na match bi tey 2-1 la mais bu Sénégal génne sarab bi mun na dem ba 3 te troisième bii bi mun nañ ko bañ bañ yaakaar naa ne loolu kenn fii ku fi ñëw gis ñi fi nekk nga xam ne Marème Seck borom jinne lépp lu ma wax suba bu ngoon jàppal kon Marème da lay bàyyi nga ñuy ñi nga xam ne ñooy mbokk internet yi nga xam ñoo fii si chaîne bi looy tàggoo. waaw di wax sant rek ak gërëm ñeel na leen wa yoonu ndam TV maa leen di sant bu baax. di leen gërëm di leen ñaane yàlla seen télé bii fi ngeen bëgg mu egg fa yàlla na ko fa yàlla eggale suñu borom subhaana wa taala borom yaa sa jalaal wa ikraam na leen yàlla teg loxo yàlla doole leen muusal leen te aar leen te aar ñu ñun tamit di ziaraat waa internet bi wax dëgg yàlla ñu ma fii seeta seeta whatsapp bari nañu te xaw ma leen wax dëgg yàlla xamu ma leen de xamuñu ma waaye ginnaaw yàlla woolu nañ ma woolu goo xamante ni képp ku ci jëflanteeg man numéro yaa ngi sama téléphone bi xamuma leen de yaay booy dama la gis ci internet bi ma buggoon nga xoolal ma te ku ma ci xoolal wax dëgg yàlla di am kontaante goo xamante ni di ko yëg sa yaram ba tout le temps yaa ngi may woo di ma gëstu te it loolu du mbirum dara lu du mbiru suñu boroom la bu neexoon suñu boroom loolu du am kon it maa leen di ziyaaraat di leen dokkelaat sama client yi sama cliente yi ñu nekk bitim réew surtout waa Nouakchott fan yëpp gis ngeen ñi ngi def témoignage ci man ci sama anniversaire bi àdduna ñu ngi koy seetaan ma ziyaar waa Burkina waa Mali waa Tamba di ziyaar ñëpp rek gu ma limee damay juum di ziyaar sama njaboot gi fépp fu ñu nekk rek monde entier di ziar sama taaw bi soxna Xadi Njaay maanaam ko yal na yàlla gën a wéral cëri yàlla boo gis lépp dara loo xamante ni looy ragal la di ziar sama njaboot gi yëpp di ziar sama chéri boo jinne euh, di ko wax dundal loo dund doy sa dund bi am na njëriñ macha allah jërë ngeen jëf. kon gars yi yéen a ko dégg noonu tey dañ ñëw fii nga xam ne mooy Arafat Kër Massar. seeti Marème Seck borom jinne yi yaakaar naa xamee ngeen ko si chaîne bi nga xam ne mooy Yonn Dem TV dégg lu wax nee na match bi tey 2-1 la Sénégal Côte d'Ivoire kon yàlla nu yàlla may ndam incha allah bi ba ngoon di fi ñëwaat. bu neexee suñu borom moom incha allah bi bu neexee yàlla Yonn Dem TV dina fi ñëwaat ndax Marème Yonn Dem TV la bokk kon ñu ngi leen di nuyu di leen ziar kon gars yi ñoo ko déggandoo.